Djibril Gningue ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi. di la sant bu baax ci ànd gi nga ànd ak ñun tey ci suba yow yaay directeur exécutif euh, bu kuréel gi di PAT euh, bokk nga it ci GRADEC di euh, groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative. et la bonne gouvernance li waral waxtaan wi bokk na ci li dialogue national gi nga xamante ni njiital lew mi euh, moo ko sooke woon ñu génnee ci yow nga bokkoon ñi nga xamante ni teewee woon nañ ko globalement lan nga ñu mën a wax est-ce que tout s'est bien passé waaw dialogue bi waxtaan wi nga xam ne ñi ngi ko doon def te euh, président de la république woote woon ko euh, ñun société civile bi en tout cas dañu ci wuyu ndax li ko taxoon a jóg mooy indi jàmm ak dal ci réew mi indi déggo ci diggante euh, way politique yi acteurs politiques yi pour que ñu mën a indi jàmm ak dal ci réew mi génn ci fitna bi nga xam ne euh, moom moo dal réew mi mhm. alors euh, leneen li ko indi woon aussi mooy yokk ndëgërlaay suñu démocratie ak suñu suñuy institution waaw loolu nag bu ñu ko bu ñu ko jàppee euh, euh, dañu ne woon euh, waxtaan woowu dafa war a doon waxtaan wu yaatu boo xam ne ñëpp danañ ci mën a bokk waxtaan wu dal wu tey boo xam ne bii ñëpp nit ñi danañ ci mën a waxtaan ak seen tey bakkan ba am déggoo yoo xam ne dana dëgër dana yaatu ñu mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne. ak fitna bi nga xam ne moom la réew mi di jànkonteel ba pare yokk ndëgërlaay suñu démocratie ak suñu suñuy institution loolu nag am na lu ñu ci am waaye am na ci loo xam ne lii euh, amuñu ko waaw li ñu ci am mooy jeexital yi nga xam ne moo tukkee ci euh, dialogue boobu ci concertation boobu waxtaan boobu <coughs> doon na dialogue boo xam ne am na ci ci dal mm-hmm. euh, am na ci euh, en tout cas wegante am na ci lalu na ci weccoo xalaat jël jël réew mi teg ko ci kanam euh, waaye gis nañu ne ci anam yi mu amee aussi am na ñu bëri ci classe politique bi ñoo xam ne euh, wuy wuñu ci dialogue boobu mhm. waaw loolu nag am na lu muy wàññi évidemment ñoom seen ñàkk wuyu boobu noonu est-ce que am na incidence maanaam ndax am na jeexantal ci yooyu la waxtaan waaw moom laa lay wax nii. Mhm. moom laa lay wax nii parce que mhm. jeexital bi mooy que euh, bu ñu sañoon lu ñu fay tënk consensus maanaam déggoo bu ñu fay tënk mu dekk dëgg déggoo bu yaatu boo xam ne dafay euh, dafay impliquer acteurs politiques yëpp. Mhm. c'est ça waaw waaye bu fekkee ne dafa ñii dañu ñëw am ñoo xam ne ñëwuñu alors luñ fa déggoo loolu du leen mën a tënk ñoom. dëgg la voilà loolu loolu loolu donc problème la voilà. ca njëlbeen dañ ne dialogue national bi euh, noonu lañ ko tuddee yëf yi sax noonu lañ ko tuddee dialogue national waaye li ñu seetlu mooy question politique lañ ciy gën a wax euh, est-ce que yow mi nga xamante ni yaa fa teewoon jàpp nga ni question yi laal askan wi les questions sociales nan ko waroon waxtaanee ca foofa demee na ni. waaw xam nga euh, xam nga dialogue dialogue politique euh, dialogue bi dafa dafa am ay commission commission dafa am commission boo xam ne moom mooy waxtaane mbiru politique waaye yeneen yi nga xam ne moom nga tudd léegi maanaam nekkunu askan wi euh, ak affaire institution yi ak question économique yeeg yooyu yooyu yëpp am na yeneen commission yoo xam ne ñoom ñoo ko waroon a waxtaanee. Mhm. waaye dafa fekk ne euh, Sénégal ci boppam euh, yéen journalistes yi ak euh, nit ñi question politique yi la ñuy gën a farataal. Mhm. voilà moo tax. moo tax mu gën cee fës. voilà loolu la mais suba ci normalement ci ci samedi bi. Euh, ki nga xam ne moom moo jiite woon dialogue national bi di Moustapha Niass. Mhm. war na tënk li jógee ci kuréel yooyu yëpp li ñu waxtaanee ba déggoo ci ak li ñu déggoowul alors jébbal ko gouvern euh, euh, président de la république. Mhm. bu boobaa certainement yéen journalistes yi di ngeen xam ndax question sociale yi nit ñi abordé nañ ko yi lan lañ ci tënk et cetera ko defee ngeen mën ko wasaare nit ñi mën a xam bu baax. dialogue national bi vraiment ci fànn bu nekk lan la ci jàpp. mu ngoog ci dialogue politique boobu kon lu toll ci fukk. ak ñaari poñ euh, am nañ ci déggoo ak ñent yoo xamante ni déggoowuñ ci waaye li ca gën a fës bokk na ci euh, saafara buñ ko mënee wax noonu yi nga xamante ni jëm na ci kaayu euh, Karim Wade ak xalifa Ababacar Sall ndax bu ñu sopparñee lenn ci ay loi ñeel code électoral bi dinañ mën a bokk yow est-ce que loolu noonu dal na sa xel li ca tukkee. man dama lay tontu ne la loolu baax na. ndax dana am lu mu mën a saafara. Mhm. notamment situation bi nga xam ne ñooñu nga tudd léegi leader yooyu ci la ñu nekkoon waaye am na yeneen situation yoo xam ne la ñu fa jàpp mënu ko saafara donc ça veut dire que am na leneen lu ko gën. Mhm. baax na waaye am na leneen lu ko gën leneen li ko gën nag ñun moom la ñu woon une société civile. Mhm. maanaam lu lu mel waaw maanaam Euh, condamnation pénale li ñuy wax condamnation pénale alors euh, bu la dalee. Mhm. Euh, nga bañ a ñàkk mënuloo ñàkk sa ak yelleef ci wàllu élection. Mhm. lu dul juge bi àttekat bi moom mooy xool ba seet bu baax ba xam ne yow mi waruloo ko war war na la ko teggil war na la ko dindil. Mhm. ci diir sàngam. ci nangami weer wala nangami at balaa nga ko balaa nga koy euh, amaat. d'accord te loolu nag boo boo ko seetee bokkul ak lii ñu jàpp ndax lii ñu jàpp moom la fi nekkoon la ñu defaraat rek waaw aslëf ba nga xam ne dana mën a saafara yenn situation yi. ñun nag loolu nga xam ne moom la ñu proposé woon kenn jàpp ko. Mhm. waaye du ñàkk bés Sénégal àgg foofu. ndax am na réew yoo xam ne loolu moo fay dox. d'accord condamnation pénale Euh, du la du mën a perdre loo kenn benn lideur ak xam ak yelefam ci wàllu Euh, politique ci wàllu euh, élection. donc ba tey ci wàllu wi li jëm ci euh, Karim Meïssa Wade dañu ne dañuy ubbiwaat procès bi revisiter le procès donc biñ ko waxee ba léegi am na ñoo xamante ni li ñu jàpp mooy buñ ko defee yëf yi dafa nar a yàggaat ba mën nañoo sax dàkk élection yi est-ce que yow foofu nga ci taxawandi. <coughs> non non non alors li ñu wax exactement ci commission bi lii la. waxuñu révision procès dañu ne. Mhm. révision arrêt xam nga procès bu amee dañuy jël benn euh, ci cour li ñuy wax cour da euh, cour de répression dafay am décision dogal ba arrêt lañ koy tuddee alors arrêt ba nga xam ne moom la ñu jëloon nag moom la ñu wax ne nañ ko réviser xëy na mën na am xëy na day am procès xëy na day am leneen lay am ñu réviser ko waaye li ma euh, la mën a wax mooy que kenn waxul ci dialogue politique bi que bu fekkee ne day am procès de révision. te mm-hmm. il faut que ñu def ko avant élection yi loolu kenn waxu ko. Mm-hmm. waxuñu dañ koy def avant waxuñu dañ koy def après. Mm-hmm. dañu wax ne rek te loolu sax kenn bindu ko euh, pour que comme principe bi tëral nañ ko fii ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, concerné yi mën nañu ko demander. maanaam Karim Wade si boppam xëy na dina ko mën demander à partir de ce moment. Euh, parquet bi aussi mën na ko demander. Mhm. alors mais euh, bu ñu ko demander euh, warul mën a yàq électoral bi su fekkee ne xajul ci diggante bi ñu def ko après. waaw mhm. donc c'est pas une condition pour que pour par rapport au la tenue des élections non n'a pas été posé comme tel. très bien beneen loolu buñ ko te loolu buñ ko posé woon kenn du ko accepté. Euh, beneenu euh, mbir boo xamante ni mun nañoo jàpp ni jur na fa euh, ci waxtaan yi solution moo parenage bi ndax bokkoon na ci li tax partie prenante yi ci bëri jubawuñ woon pourcentage bi wàññi nañ ko ba ñu ne dañuy dem ci parenage opérationnel est-ce que mun nga ñoo faram-fàcceel expliquer ñu li ni mel. waaw parrainage optionnel. optionnel. pas opérationnel. voilà maanaam parrainage boo xam ne da ngay tànn. Mhm. da tànn ban nga ciy def. Mhm. alors parrainage bi. <clears throat> de ñi ngi woon ci parrainage citoyen ci élection présidentielle bu mille dix neuf loolu moo nekkoon ci code électoral bi maanaam ku bëggoon nekk candidat da ngay indi euh, fukki junni ak juróom-ñeent ci électeur nga def leen ci liste ak seen numéro carte électeur seen date de naissance nangam nangam indi ko daal ne ñii accepté nañu parrainé ma maanaam boot ma man accepté nañu boot ma mm-hmm. ah, mooy parenage alors ah, léegi nag euh, ñun société civile depuis deux mille dix huit dañu proposé woon ne parrainage bi nañu ko woyefal te niñ koy woyefalee mooy ah, ci ñaari anam ñu yaatal ko maanaam ci yóbbu ko ci député yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci maire yi ñoom itam ñu mën a parrainer ay ay candidats muy benn ñaareel ba pare na citoyen bi ñu wàññiku ah, bu ci nekk ci yooyu lim bi daal ñu wàññiku mm-hmm. alors léegi nag boo seetee li nga xam ne moom la ñu jàpp fii euh, yaatal boobu ñu waxoon def ba mu nekk ku bëgg euh, électeur ñi nangami électeur pare na la ku mënul loolu nga dem nangami maire wala président de conseil départementaux conseil euh, euh, kii la parrainé la euh, foofu ñu ngi fa wax cent vingt téeméer ak ñaar fukk. Mhm. bu dee ci parrainage électeurs yi wàññi nañ ko def ko mu mu nekk huit pour cent gën ngaa bari. Hmm? Mhm. alors bu dee ci député yi fukki député ak ñett lañ lay laaj tey. Mhm. alors loolu ñu gis ne progrès la. Ah, maanaam lu baax la ah. kon am na ñaari mbir yoo xam ne ñaari yoo xam ne ñaari dogal yoo xam ne baax na ci parrainage bi mooy ni ñu ko yaatale benn. Mhm. beneen bi mooy ni ñu wàññee lim bi ñuy laaj ci parrainage citoyen bi. Mhm. waaye des na ba léegi. waaw des na ba léegi parce que euh, parrainage citoyen bi li ñuy wax doublon maanaam ñi nga xam ne dañuy nekk ci liste bu nekk waaw candidat yi dañuy dañuy nekk ci listu candidat yëpp alors loolu nag bu daan am duñ ko dindil ki jiitu dañu koy dindil ka ca topp alors loolu nag ñu gis ne euh, jaaduwul euh, du indi yamale ci candidat yi monsieur Djibril Gningue est-ce que ci ci ci dialogue bi ba tey Euh, li jëm ci euh, question troisième mandat bi nga xamante ni ba tey coow li pënd ba wureegu ci yéen waxtaane ngeen ko fa waa troisième candidature bi waxtaane nañ ko waaye ni ñu ko waxtaanee dañu ne la question de la candidature euh, euh la question de la candidature du président sortant waaw maanaam ki nga xam ne moo fi nekk président ba léegi waaw loolu noonu lañ ko waxtaanee mhm. loolu nag ba ñu ko waxtaanee alors ku ci nekk am nga sa pour wax nga sa position waaw ku ci nekk wax nga sa position ba ñu waxee position yi méngoo ci position yi amul ah, waaye li ñu xam ne ci lañu ñu déggoo ci la ñëpp euh, déggoo pour tënku ci mooy ko na ñëpp ku tënku ci constitution bi mm-hmm. te constitution bi dafa wax ne benn euh, euh, candidat benn président mënul def Euh, lu ëpp ñaari mandat yu tegle loolu donc nañu est-ce que liñ fa tënk yëpp mën na aller dans le sens d'apaiser le climat politique rawatina ci élection yi ñu jëm waa jàpp naane lañu la tënk dana indi euh, dana am jeexital yu yu yu yu baax ci ci démocratie Sénégal dina am jeexital yu baax ci institution yi mhm. ni mu tëddee woon ba léegi mhm. Euh, mais li nga xam ne euh, moo jëm ci euh, jàmm ak dal ci dëkk bi yaakaaruma ne li ñu fa jàpp dana ko dana ko indi ndax li nga xam ne moom ñeenti ñeenti ponk yi ponk yi nga xam ne déggoowuñu ci mhm. loolu moo ko waral maanaam ki nga xam ne moo war a organiser élection yi alors opposition ak société civile dañu mas a laaj pour que ñu jël une personnalité indépendante boo xam ne farul ci guvernement bi farul ci benn farul ci opposition bi comme ni mu amee woon deux mille ni mu amee woon deux mille onze mhm. mu am ministre boo xam ne moom élection rek lañ ko sant moom la moom lay def loolu nag jubóowuñu ci mhm. waaw jubóowuñu aussi ci ku nekk chef de l'État nga bañ a euh, farati fenn mhm. di di di am parti di diriger parti Mm-hmm. ah loolu aussi eh, yàgg nañ koy laaj pour gën a dëgëral suñu démocratie. Mm-hmm. parce que ku nekk président yaa war a jaboote ñëpp waaye loolu gis nañ ne déggoowuñu ci. Mm-hmm. déggoowuñu aussi ci ah, euh, ñi nga xam ne xew-xew yi fi amoon ci mois de juin dañ leen jàppoon te ñu toll ci presque juróomi téeméer wala juróom benni téeméer ñu nekk ci kaso yi pour ñu bàyyi leen. wala ña ëpp ñi nga xam ne dañ leen jàpp ci lu ñu wax wala lu ñu bind wala ci manifestation rek bu doon def te yàquñu dara. ñu kenn ñu bàyyi leen loolu aussi euh, déggawuñu ci mhm. euh, mujj ñeenteel bi nga xam ne déggawuñu ci mooy euh, code électoral bi ni ñu ko modifié ñun société civile ak opposition dañu proposé woon ne balaa ngay nit ki di war a ñàkk ñu bind ci ne balaa nit ki di ñàkk àqam ak yelleefam ci wàllu élection mhm. na doon loo xam ne lii Euh, juge bi àttekat bi moom moo koy wax comme ni ko code pénal ci article trente quatre waxee loolu aussi déggoowuñ ci jàpp nañ ne ñeent yi nga xam ne déggoowuñ ci euh, mooy tax la euh, li ñu jàpp ci ci ci waxtaan bi du mën a régler du mën a saafara fitna yi nga xam ne moom moo moo nekk ci moom la réew mi jànkoonteel mhm. crise politique bi nga xam ne moom la réew mi jànkoonteel bu fekkoon ne yii am nañu ci déggoo Euh, amul benn werante ne dina mën a indi euh, dal ak mhm. euh, jàmm dana mën a ci dëkk bi te dana mën a saafara mhm. crise politique bi nga xam ne moom la ñuy traversé laaj bu mujj bi rek moo ñeel uh, Juan Branco avocat boobu nga xamante ni day layal uh, Ousmane Sonko gis nañ mu def uh, une sortie médiatique wax ci ne dafay traîner devant la cour pénal internationale état bu Sénégal yow lu ci sa xalaat ci plante yooyu mu annoncé. xalaat ci loolu mooy que bi nga xam ne moom moom la ñu cour pénale tribunal boobu nga xam ne day àtte euh, ñëpp ñi nekk ci àddina bi te def euh, crime contre l'humanité li ñuy wax crime contre l'humanité mhm. alors Sénégal si na charte boobu kon nag euh, ku nekk fii Sénégal moo xam njiit nga wala keneen def yenn jëf yi cour boobu tribunal boobu war na laa mën a àtte su fekkee ne bii am na plainte buñ ñu fa déposé boo xam ne ci yow la jëm muy benn. Mhm. Euh, waaye li nga xam ne moom lañu ñu war a jàpp mooy que euh, donte Sénégal signé na charte boobu euh, duñ la mën a yóbbu foofu ci sama xalaat lu dul tribunal yi nga xam ne dañoo nekk fii ci biir réew mi jugé nañ la àtte nañ la ba àtte ba jeex am ndogal wala àtte wuñ la ñu bañ laa àtte Mm-hmm. ñaar yooyu bu fekkee ne benn am na ci foofu dalañ la mën a mën a atte waaye bu fekkee ne bii yow jéemuloo ut ñu atte leen fii ba nga ñàkk ko am yaakaaruma ne di nga mën a euh, yóbbu plainte ñu nangu plainte bi monsieur Djibril Gningue ñu ngi lay gërëm waa jërëjëf maa leen di gërëm di leen sant. fàttali ni yaay euh, directeur exécutif bu PAT bokk it ci euh, GRADEC ñu amoon mbégte lool di jokkoo ak yow tey ji suba si ci la matinale de Rewmi FM voilà jërëjëf Awa Mimi Seck